Assalamualaikum wa Tiwaawoon assalamualaikum mbokku tiwawon gi yep bon ma ngi len ni nuyu ku ci nek ce tour ak sa sante man la mustafa mbeng Dia alias Reuf Maafi fi nekkon don def vidéo yële passé yo xamanteni ni dama nekkon di def di classe ay monsieur le maire ak di classe wa maire ak di def yu ni mel bon di leen xamal tamit loolu am na lu tax ma ko daan def te li tax ma ka daan def am na leader politique yi nekkoon sama ginnaaw ñi nga xam dañuy opposé bëgg bëgg dëkk bi ñi ngi woon sama ginnaaw ñii di ma woo téléphone ñii di ma envoyé xaalis ñii di ma defloo euh, li ñu ma daan defloo yi si ëpp sax defuma ko parce que yi ma leen def noonu moo si gën a ndaw bëri na yi ñu ma yàgg defloo yoo xamante si nii mën naa tas mboq mën naa tas àddina ma dem ba ci biir xam ne ñii nag dañ may sàkketoo ma comprendre loolu lépp mooy revenir nekk ñëw bëgg a def sama déclaration pour xamal leen ni leen leader politique yooyu sax duma leen tudd mais dinaa leen dinaa leen dinaa leen junjal lu tuuti rek ma yor seen numéro de téléphone téléphone yi numéro yëpp a ngi sama bopp ma enregistré ko bon su ma waxee comme le cas importé ñu bëri dinañ xam ki may wax damay bañ a wax tudd tur di tooñ dépassé naa fu may tooñe léegi parce que dama nekk léegi si loxo kilifa kilifa bi nga xam ni mooy kilifa dëkk bi ki nga xamante si ni mat na kilifa moom laa àndal mu nekk sama ndijaay nekk nekk sama leader nekk sama monsieur le maire taxawu tamit temb pour jàppale ko mooy sama déclaration tey man mi daan taxaw di bind si miir yi tay man ma taxaw fas yéene ut peinture a iwul dindi lepp man mi nga xamanteni ni ma daan def vidéo di wax la ndaka sudul noonu ma ngi jégalu sama wa famille ma ngi jégalu ma ngi jégalu militant monsieur le maire yépp ma ngi jégalu samay soppe samay am di di jégalu particulièrement sama yaay boy xamna ni neexu ko parce que ko xar xol bi jàng mbeng nga ciy fekk lolou ma di jégalu tamit bu sama yaay ki nga xamante ni moy sama kilifa taxewoo ma tank yépp te ñëpp xam nañ ko te ku bax la ci dëkk bi te man nee sax koku ñu bëri dinañ jappalé jàng ndax mom muy kan Moustapha Niang muy Tafa Mbeng bon bu lolou ma ngi waxat tamit jeunesse bi ni leen pour ngeen xam bu baax fi ngeen di teg seen tànk ngeen xam bu baax ñi ngeen di àndal ngeen xam bu baax ñan ngeen di jox seen i kàddu parce que ki leen mën a amal njëriñ dafa am solo ngeen xam ko par rapport ak ki nga xamante si ni dafay yëkkati xaalis ñëw jox leen te xamuñu fu mu amee xaalisam premièrement loolu laay wax duma wax kenn lii wala lële di ngeen xool tamit ki ngeen di jox seen dëkk mu mën gouverner da ngeen jox ki ngeen xool di ngeen war a xool ki ngeen jox seen dëkk comme un administrateur bu mel ni le maire Diagne Sy mbeng il a mérité ça mérité na mérité na sax nekk président de la république du Sénégal mais ki nga xamante si mérité wul jiite ay nit parce que chantage la bëgg jiite nit yi ñi nga xamante si ni dañuy yëkkati xaalis di jox nit yi pour nit yi ànd ak ñoom dama bëgg ñu bàyyi xel ci loolu bu baax am na ñoo xamante si ni seen xaalis setul bu ñu gisee loolu mu réussir ñu yëkkat xaalis si joxe politiquement kooku gañe keneen ak keneen un un homosexuel sax bu ko neexee mën na ñëw yor xaalisam jox ko nit yi parce que bu gisee loolu réussir mën na ko def wala les francs-maçons kon ki nga xamante si ni dafay politique politiqueul xaalis mi ngi politique pour avenir dëkkam ak avenir euh, jeunesse am kooku moo gën a jare jàppale. di leen wax bari na ñu topp sama ginnaaw bari naa mbooloo boo xamante si nii su ma leen jóg lowee ñu jóg su ma leen wax lowee ñu wax su ma leen xàcc lowee ñu xàcc su ma leen nee ko dal ñu dóor te ñooñu ñëpp dañ ma doon déglu pour xool kan laa war a mën a àndal si élection locale yi jusqu'à présent maa ngi door a def sama déclaration tey sama baat ci kaw na ko ñëpp man maa ngi ànd ak la maire jang si mbeng jox na ko loxo ñima andal yëkëti na ñëpp jox ko ko parce que xam naa ni moom moo yor loxo yu ñu mën a téye ay loxoom set na mën nañu téye su weesoo su weesoo loolu tamit may jéggaluwaat ñi nga xamante si nii mere nañ ma si lu passé di leen excuser wu bu baax di leen wax nul ne parfait bëgg di bañ mom, bañul bañ di bëgg mom na limay wax ko di tamit euh, lancer un appel di jox ñëpp rendez-vous di jox ñëpp rendez-vous si li nga xamante sini, mom lay teural ni te bëgg vous def dimanche prochain ak réunion publique def pour taxaw publiquement ñepp xam ni kat reuf mi nijaayam la andal, mom la andal man kenn du tas sama mbokk kenn mënumaa yàqal ñi taxawon bëgg ma yàqal yépp nañ japp ni seen gàllaaj toj na bis ni ko tay xaliss dañ ma daan jox musuñu ma jox sax lu mu amal njëriñ dañ ma daan santage nag boo bindee ci mur bi nangam wala boo defee vidéo nangam wala boo defee li mën nañ la jàppale si lu bari te dama dem ba ci biir xam ni loolu lépp ay naxe la buñ ma mënoon jàppale sax soxlawuma seen ndimbal parce que jàpp jàppale nit ba pare sa kook ay mbokkam jàppale boobu noonu bañ ko jàppale moo ko gën numéro de téléphone yi ma doon wax sànq nag leader politique yi nekk fii ci waawoon du ma tudd seen tur waaye ñu su ma waxee ñu bëri dinañ xam parce que yàgg nañu gis rëf ànd ak ñoom wala ñoom ñuy woo rëf ba bari na ñu mu mëna sédé suñu mouvement bi ma mouvement bi ma nekk di doxal dañ may wo, dañ dan wo sama coordinateur dañuy wo ñen ñi ci élément mouvement bi rien que pour bëgg ñu corrompre mën nañ leen jox tay 100000 francs ngeen def nangam est ce que am ngeen ataya mel ñu yoy dañ ñu fi bay wu ñu fi ñun développement moo ñu fi bay ak xol suñu dëkk nan lay développer ta yalla dimbali nañu ba teg ko si loxo ki nga xam mën na doxal mën na sax sénégal waxatu waxuma la waaw loolu loolu loolu dama koy jégalu bu baax dama koy jégalu bu baax a baax a baax a baax voilà ñooñu sax ay procureur ak ay préfet ak ñooñu ay euh, ay ay commissaire ñooñu xam nga politiguñu ñooñu buñ ñu demee ba dugg si loolu rek kon peut-être amoon na ay influence yoo xamante si ni bëggoon nañ mbiri salté leader politicien yi ma doon def loolu loolu nak man musuma xam ay bu may bu ma taxee ba naan maire bi bo rombé dang fay bo rombé dang fay gis ay affaire yu ñaaw yoy non ñu su doon tuddu amna leader politique bu ma wax lo won ni ma waxal li ma nekkon si loolu foog ni li moy voie normale bu bax bi te loolu man dem na ba ci bir xamni li di voie normale du bu bax may ngi chef municipalité bi may ngi wa maire yi maa ngi képp ko ni nga dëkk Thank you.